الحمد لله الذي تفرد في ملكه وبقاه وتقدس وتنزه في أزليته فلا عين تراه حكم بحكمه في خلقه فلا معقب لحكمه ولا راد لما قضاه قسم الأرزاق والآجال بين عباده هذا منعه وهذا أعطاه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 صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم عرضه ولقاه أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله فقد فاز من اتقاه وأحذركم عن المعاصي فقد خاب من عصى مولاه ولازموا طاعته ففي طاعته رضاه wa anhaakum an ittibaa'i l-hawaa faqad dalla man ittaba'a hawaahu wa aamurukum bi ta'jiili t-tawbati qabla an yablugha l-ajalu muntahaahu wa'lamuu yaa ibaadallaah anna man dakara llaaha dakarahu wa maa tuqaddimuu li anfusikum min xayrin tajiduuhu 'inda llaah واحذروا زمانكم هذا فإنه زمان قل خيره وكثر بلاه واستعل كل منا بطلب دنياه وغفل الغافلون عن الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله وصار الدين غريبا كما كان مبتداه فوا أسفاه وقيلة حيلتاه وقلة حيلتاه في يوم تظهر فيه الفضائح وتظهر علينا فيه الجوارح والحاكم هو الله yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma'idin lillah wa fi lxadis arba'un min alshaqaawa jumudu alayn wa qaswatu alqalb والحرص وطول الأمل وفيه أيضا أن الله يبسط يده بالتوبة بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها يغفر الله لي ولكم walijamii lmuslimin mbokki jullit yi ginnaaw bu sante yàlla subhaanahu wa taala ci xéewalam yu màgg yi ñu defal yu bari yu amul àpp yi te bii bokk ci te gàllu nu ci dara te gu nu it sant nu it lu weesu jaamu ko képp leneen lu mu moonu ko ameel te bu ko neexoon kat duna amel dara ba noppi ne ni jaamu dama leen muy jaamu gàll ci wetam te ko dara waaye lépp moo nu ko amel te tegul rek lu dul jaamu ko képp te loo ko jaamoo di jaamoo di boo ko ne baal moomu baal la kooku kon googu xewul kenn mënu koo sant moo ko ciy sant di jëlli ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ni yërmandeem jëpp ci moom la ko jaarale moo ñëw ci noonu di sant na Ahmadul Xadim ki nga xam ni moo nu musal ci xeex pexe suñuy noon ba doxuñu suñu digganteeg jëriñoo xéewal googu mbokk yi mu mel ne tey kon noo ngi dellu siwaat te li nuy faral di wax di ko waxaat te duñu ci jóg muy dellu siwaat ci njaboot gi muy njaboot gi muy jigéen ñi ak gone yi jigéen ñi ak gone yi na xam ni mbokk yi ni islaam soxlaa jigéen ñi ak gone yi noonu la ko nu ko raw la ko noonu lislaam soxlaa ndax dara du yiteem lu weesu feesal sawara ci jigéen ñi ak gone yi ak mag ñi te foofu la ko mën a jaaree foofu la ko mën a jaarale kon ni ko lislaam soxlaa nu ko raw la ko noonu bi soxlaa kon li mu yàq lépp foofu la koy jaare soxlaatul mag ñi ndax mag ñi li muy am ci ñoom am na ko ba noppi lu mu ci amul woon duutu ko ci am te sax soxlaatu ci dara ndax mënt mag mënta yàq dara yàq mi ngi jaare ci jigéen ak gone waaye mag moom mënatul yàq dara ndax jigéen ñu xoolatuñ ko gone yi xoolatuñ ko moo tax mu ne mënut a yàq lu bari moo tax soxlaatul mag ñu gone jigéen ñi rek la soxla te dafa am ci seen borom xam-xam yu mag yi koo xam ne dafa waxoon ni aw xeet boo ko bëggee not dangay fexe ba yett yi nga am ko ci mooy yàqal jigéen ñi yàq njàng mi déstabiliser ñi ñuy wormaal fexe ba dutuñ wormaal kenn nee na ñett yooyu saa soo ko amee ci xeet la nga ca bëgg da ko am saa soo leen amul ci xeet loo ci tabaxit day màgg yal na nu yàlla xéewale yal na nu yàlla dimbale ba loolu buñ ko am waaye nag aw na yoon wi jigéen ñi la njëkkee jigéen ñi nee na boo yàqee jigéen yàq nga gone yàq nga am ndax arab dañuy al um hiya al madrasatul ula ndey mooy école bi njëkk ci gone te borom xam-xam ne dañuy wax ni gone ni mu soxlaa lekk ak ni la saxla woo al ihtimam wa riaya min ummi dina soxla woo yitte woo ko ko ndeyam di woo ni mu koy sàmmee na mu koy aaree na muy defee ci moom ay yëf yooyu mu cay def ak yo muy xool ci ndey jàkk yo moom muy ak yo muy jëlee ci moom nu ko raw ni muy lekk aar ak yitte woo lekk naan nu ko raw la li li yitte woo yooyu léegi nag bu fekkente ni jigéen ji fexe nga ba yàq ko ba gëmul dara jàngul diineem nga gëmloo ko ni góor ak jigéen a yem gëmloo ko ni lu góor am jigéen war na ko am gëmloo ko ni islaam daa tooñ jigéen ndax jigéen góor góor waru ko seeta njëkk ci maraas gëmloo ko ni kër gi góor geeg jigéen ne ci yem gëmuloo ko nangam gëmloo ko nangam gëmloo ko nangam moom gëm yooyu yëpp gëm boppam yàq nga jooju jigéen joo jigéen ju yàqu nag gone gu mu formé ku xam na ni du baax loolu moo tax mu njëkk jigéen ñi la gën a yitteel jigéen ñi ñoo war a xam seen bopp xam ne yàlla mi leen bind moo leen gën a xam moo leen gën a bëgg moo leen gën a yërëm lislaam mi yàlla boo leen moo leen gën a xam moo leen gën a bëgg moo leen gën a yërëm cër bi lislaam jox jigéen di tubaab bi bu yàgguloo la ñu tàmbalee di andi droit de euh, la femme ak droit de nangam ak nangam bu yàggul lañu ko jigéen naka jekk islaam islam da koo jox cër arab dafay wax ni képp ko fi tekk dara jigéen a nekk sa ginnaaw loo tax jigéen su baaxul aw xeet du baax loo tax ñoom jigéen ñi la ñu yittewoo ci yàq leen te maanaam naan seen yu gëmloo leen seen bokk ba duutuñu nangu ku leen yilif duutuñu nangu duutuñu gëm góor duutuñu nangu ku leen yilif duutuñu nangu kilifteef duñ jàng seen diine àdduna rekk la ñuy gëm madda dong la ñuy gëm moom la ñuy xam moom la ñuy wut loolu nag mel na ni toll na ci jigéen ñi jamono jii nu toll doy na waar kon boo yàqee jigéen yàq nga yàq ngay gone loolu tax tudd sax gone jigéen ñi rek la wax xam na ne boo yàqee jigéen rek yàq nga gone yi boo yàqee jigéen ñi ba noppi nga yàq njàng mi yàq njàng mi mooy fexeel ba nit ki bu mu jàng lu ko amal njariñ waaw jàngal koo làkk rek mu jàngoo làkk ba man ko nga jàngal ko ya aaday ak culture jàmbur ak njariñi jàmbur nga xam ni du xam boppam nun sun njàng mii ci réew mii jàngkat jàngkat yu fi nekk làkk tubaab ak bind ko ak bind téere ku leen ko dàq ci àdduna amut Sénégal it kenn ku ko ëpp daay intellectuel ci réew yi amut ana lu mu ko jëriñ bokk yi intellectuel Sénégal lan lañ jëriñ Sénégal bokk yi Sénégal fii ñu toll fukki réew ak juróom-ñeent yi gën a pauvreté ci àdduna Sénégal ci la Sénégal ci la bokk te ñu ne lu ne am na lu ne lu ne lépp lay xeetu mbell wu nekk ci biir suuf am na fi jàngkat bu ne am na fi diplôme bu ne am na fi tey la réew mi gën a jëm ci gannaaw loolu mooy yàq njàng bi dañu ñoo jàngal suñu bopp ndax nit ku soo koy jàngal di ko jàngal ci làkku jàmbur du xamu làkkam wolof rek day gisee koo xam ne day wax naan xaw ma nu waxee ci wolof te ruus na ko wax ni xaw ma ñu ci tubaab ruus na ko làkk ba ne xaw ma nañu koy wax ci tubaab kenn du ko ci def ruus na ko waaye ku ci wax ñaari baat ne xaw ma nañu koy wax ci wolof nga xam ne du du du du xamul gravité li wax xamul ñaawaayu li wax xamul ni mu delloo gannaawam ci li mu wax xaw ma nañu koy wax ci wolof waaw dañ ko jàngalul aw làkkam jàngul aw làkkam làkku jàmbur lañ ko jàngal lañ ko jàngal jàngul culture am culture jàmbur lañ ko jàngal jàngul aadaam jàngul ay magam culture jàmbur ak àdduna jàmbur ay magi jàmbur lañ ko jàngal suñ gone yi kenn ku ci xam sa cosaanu Sëñ Tuubaa amut kenn ku ci xam cosaanu Seydi Hadji Malick amut kenn ku ci xam cosaanu Lat Joor Lat Joor amut wala boog bu ñu leen di jàngal Lat Joor lañ leen di jàngal ceddo ya te lañ leen tey jàngal du jom ja du jikko yu baax ya du fit wa du xel ma waaye dañ leen di jàngal pratique ya rek yeer yaak nangam ak nangam fekk ñooña ay ay ay ay qualité nga ci ñoom suñ maam yi ceddo yooyu ay qualité ngi ci ñoom muy muy muy jom muy aw fit muy am xel muy muy muy muy dëgër muy jëm kanam te duñ dellu gannaaw xeetu qualité bu baax boo bu ñuy bëgg ci nit mi ngi ci sunu ami cedd yooyu la tax yonent bi sallallahu alayhi ne ku la gën ci cedd ga moo la gën ci diine ji jàngale ñu suñu maam kenn xamu ci suñu maam maam yi jàmbur leen jàngal suñuy culture xamuñu ko culture jàmb rek lañ leen di la la la ñuy jàngal ba ci culture yi fooy yi sax fooy yi yi sasaanoo ci réew mi yëpp sàggane nañ ko foo yi tubaab yi dañ ñu andil muy football muy nangam ak nangam euh, kuratul yad kuratul xaddam kurat nangam ak nangam yooyu nga xam ne foo yi tubaab yooyu yooyu lañ ñu jàngal yooyu ci lañ ñu defal suñu njëriñ ba gone yëpp loolu lañ gëm suñu foo yi cosaan yi sax gëmatuñ ko ndax lépp bëgg noo déstabiliser bëgg noo fàtteloo suñu bopp loolu mooy yàq njàngam nit ki soo ko jàngalee loo xam ne xamul diineem xamul boppam xamul cosaanam xamul aadaam xamul culture la mu jàng lu mu koy jëriñ foo ko yàq ngam jàng te noonu la ñu jànge yéen ñëpp maa si ngeen sax xam ni noonu la ñu jànge sunu école yi benn njëriñ nekku ci ci noonu lu weesu jàngal nu làkk leen ñuy jàngal mënuñ ci pratiquer dara ndax li fi nekk ci ay intellectuel bu amoon njëriñ kon réew mi tey jii weesu na fii mu ne waaye réew mi gën a arrière dellu gannaaw ci ci àdduna yi ci yi ci la bokk te buñ doon xool ay jàngkat réew mu ko ëppale Sénégal amul ci kon mbokk yi moomu jàng lu mu njëriñ yàq nañ sunum jàng kon yàq nañ suñu jigéen yàq nañ suñu jàmm la ca tege mooy ñu déstabiliser ñi nga xam ni ñooy ñi ñuy wormaal fexe ba duutuñ gëm kilifteef fexe ba duñ gëm kilifa ak diine fexe ba duñ kilifa kilifa kilifa ak aada jàngkat tubaab bi sax bañ nañ ko ba ñu ci ëpp sax dañuy xeeb seeni waajur bari na ci bari na ci lool ñoo xam ne bu ñu jàngee ba egg fenn bi daanaka dañuy xeeb seeni waajur sax waxuma laa ne keneen duñ gëm a cib sëriñ bu ko defee nag lañuy la la la lañ leen di gëmal lañ leen di gëmloo mooy kilifteef amu fi kenn ko nekk ak sa sa bopp loolu mooy mooy dox ci jamono jii ñu toll képp ngeen di ko gis boo duggee ci réseaux sociaux yi da ngay gis lu bon loo leen di ko wax ci kilifa yi diine yi ñooña bu ko defee dañuy seet politicien boo xam ne nit ñi gëm nañ ko ñu làqoo ko mel ne kooku lañuy jàppale ngir bëgg li ñuy wax sax nit ñi fekk jàppale wuñ kooka dañuy liggéey dañ leen di liggéey loo wala wayefal kilifteef déstabiliser kilifa yi diine yi déstabilité aada yi ak sunu mag ñi loolu rek lañ di liggéey loolu loolu ci seeni i liggéey la bokk jamono yi ñu toll ni ngi ci jamono yi ñu toll ngay gis ku taxaw ci ensemble wala mu taxaw ci kenn mu aw nit wax ci kilifa diine lu ko neex te du ko wàññi dara loolu amuloon loolu njëkk mag ñëpp gis ngeen ni bu njëkk ku ma saa taxaw ci jataay wax ko lu mu gën a néew ci seen tubaab rek ñu rey la rey lañ lay def waxuma la dóor waaye dañu lay rey léegi nag ngay gis ko mën a taxaw wax lu ko neex wala mu dem ci ab audio wax ko lu ko neex wala ci assemblée wala mu dem ci réseaux sociaux wax lu ko neex am na ñu ko xam yow yaa ko xam daal am na ko xam waaye du ko dara du ko ci faj loolu dañ leen koo liggéey loolu dañuy dem nag ba yi dañuy essayé ba xam li ñuy dox mu ngi dox wala doxul dañ koy essayé mooy di gën di jege di gën di jege di gën di jege buñ demee ba ndawul buur sañ a taxaw ci biir àll biir Touba wala fa wayefal kàddu sëñ bi déstabiliser dañu sëñ bii liggéeyloo te dara fekku ko ci mbokk ñooñu ñu ngi réussir président de la république taxaw na fii mas naa taxaw fii ci dëkk bi wax fi dara xalif général ne ko da ngay fenn ci kanamu nit ñëpp mu ni yàgg mu jul fenn ñu mag ñëpp xam nañ ko mag ñëpp fekk nañ ko président de la taxaw na fii wax ba noppi xalif général jóg ne ko li ngay wax dara du dëgg da ngay fenn te man mënumaa jëflante ak nit kuy fen mënumaa jëflante ak ku amul kóllëre xas ko ba mu sëgg président de la république booba kenn sañte wax ci kilifa yi diine yi dara tey nag lu neex nit ñi ñu ngi koy wax ci kilifa yi diine yi ngeen defoon ne politique la wala nangam ak nangam déedéet dañ leen di liggéeyloo kon nag bokk yi bàyyi leen xel loolu bàyyi leen xel ñett ñi nan gën a boo sonnaat ci jigéen ñi fa koy tàmbalee mooy sa doom yi jigéen ñi du sa doom yi jigéen ñi yar leen yarul diine jàngal leen jàngal leen alxuraan jàngal leen diine bokk na ci li ñu wooyee fale woon fi ñu tàmbalee yàqum jigéen fexe ba gëmloo nit ñi jigéen muy njàngum jigéen jërul muy sori am na mag moo xam ne dafa toog ci sëriñ bi sëriñ bi ne ko kama la joxoon fekk sëriñ bi la ko jox soxna ne ko kama la joxoon ka nga ci amoon anamu mu ne ko day mbàkke mi xam naa bu doon góor de mat naa dem mat naa daal jàng mu ne ko ah, bi jigéen nag bi muy jigéen maanaam ne ko bi muy jigéen nag da nga sa jàng kon jigéen daa war a jàng ndax nit ki bala nga koo defar da ko war a jàngal nañ jàngal jigéen ñi ñu jàng alxaan di ko mokkal di ko tari di jàng fiq di jàng lépp sunu ma sunu mag yii fi nekk ñoom ñëpp seen waajur dañoo jàngoon soxna jaaro moo rawoon ci réew mi te soxna maam Asta Waalo waajur ma ko jàngale maam Asta Waalo waajuram téere yëpp laan jàngal am na kilifa goo xam ne na ma ne ma maamam nee na ba muy mujj a gis soxna Asta Waalo booba mu ngi sol jàllaat bi sol mbaxanam tuuti caaraat di jàngale ma xam waaw comme jëla comme jëgis nga xam ne da yoroon daara di jàngale téere ñi yëpp kon ma ni soxna jaara moo fi rawoon soxna boo waajuram a ko jàngale man ki fa goo fi gis mu tekki dara waajuram daa jàng dañ koo defar mu soog koo defar waaye kenn ku sa ndey defar wut doo defar wenn kilifa koo xam ne yam defar wut amut kon man nan sonn ci gone jigéen ñi jàngal leen jàngal leen seen diine jàngal leen alxuraan boo leen di jox nga tànnal leen na nit ku am diine ko am jikko yu baax jox leen ko te bul sa bul ca wut alal bul ca wut leneen seetal leen nit ku am diine seetal leen nit ku am ngor seetal leen nit ku fonk diineem te jàng nga jox ko ko bu ko defee bu ñu ci amee doom rek lañ ci bëgg da nga ko am joojo doom du neex a yàq waaye nag jigéen boo ko jàngal yëroo ko ba mu ne lëng nga xëy jox ko ku la neex mu am ca doom du am soxla ca doom ja mu dugg ci jamono bii yàq rek lañ koy def te gone bu ñu yàqee jamono ji yàq réew mi bu ñu yàqee jamono ji yàqal na lu loo xam ne mën nañu ko defal kon nag bokk yi nañ sonnat ci njaboot bi nañ sonn ci jigéen ñi ci njaboot yi ñu jàngal leen te ñu fexe ba góor góorlu ba suñu jàngum réew mi ñu soppi ko ñi nga xam ne ñooy wut réew mi ak ñu doon dara ci réew mi nañ ñu dimbale ci suñu jàngum réew mi ñu soppi ko jàngal na suñuy maam jàngal na suñuy aada jàngal na suñuy culture jàngal na suñuy làkk te bàyyi làkk jàmbur yi ñuy jàngal mel réew mu dawee lépp ci làkku jàmbur amul réew moo fi seen muy dem ciw lànkam ciw làkkam lay demee waaye gone mat a dugg école nga dugal ko école mu am ñetti at di jàng làkk képp ba juróomi at di jàng làkk woowu képp lay jàng ndax leen koy expliqué ci làkk woowu nga koy expliqué bala koo xam bu fekkoon nag ci làkkam nga koy jàng bis bu set loo ko wax ca saasa la koy xam kon lu ñuy jàng si jamono ji ci juróomi at ci ñaari at wala at ak genn koy jàng ci si ñëw làkk kon man ni nañ ñu dimbale ci defar jàngal sunu làkk te delloo si suñu njàng mi defaraat ko loolu nag nun noo ko mën a suñu bopp ndax ñun ñëpp ay jullit lañu nan góorgóorlu ci sàmm suñu jigéen ñi sàmm suñu gone yi te defaraat leenu man lépp ci sunu njàng ak sunu ak الحمد لله الذي احتجب في حجاب جلاله فلا اعتراه العيون وتفرد في صفات كماله فلا تخالطه الظنون أحمده سبحانه وتعالى بمهامده التي يذكره بها الحامدون وأشكره بشكره الذي تقر به العيون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل أن يكون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي تصرفت به الأنبياء والمرسلون اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم يبعثون أما بعد فيا أيها الناس ما هذه الغفلة التي أنتم عليها عاكفون تسمعون المواعظ كل جمعة وأنتم عنها معرضون أتظنون أنكم في الدنيا مخلدون أم تتوهمون أنكم لا تموتون ولا تبعثون أين الأنبياء أين الأولياء أين المرسلون أين الأمم الماضية أين آباؤكم الأقدمون قد ساروا والله في التراب وهم الآن ذائبون متقطعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وفي الحديث أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم وفيه خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين